ربهم استمع يصفون والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ñu jox kàddu gi Abdou Sène mu wax euh, au nom des comités de lutte contre les inondations mais également mu wax en tant que coordinateur du COLIGEP ñu leen di jaajëfal à l'avance ci taxawaay bi sur le terrain parce que bu ñuy wax lutte contre les inondations ñi nekk ci terrain bi surtout ñoom ñoo yore liggéey bi te dañ commune bi diviser ko en euh, en 14 secteurs secteur bu ñu un comité ay véritablement si ci bi pompe yi bi baax et donc Abdou au nom des coordonnateurs au nom des coordonnateurs des comités mais en tant que également coordonnateur du collège ñu jox la merci monsieur Dabo. asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu mbokk yëpp ñi fi teew yëpp njëkke ci suñu kilifa monsieur le maire Albocar euh, Alpha Bocar madame Fall ak monsieur Djibi Ndiaye di ci teg nag bépp kilifa ak représentant yi ñëw fii euh, di wax nag ci turu 14 comités de gestion de lutte contre les inondations des communes de Sangalkam am yi nga ne monsieur le maire moo installé woon fii daaw di wax itam ci turu collège bi nga xam ne par la famille. initié fan yii lui a yàggul que su euh, comité de gestion yi lay ah, ndax dafa daaw ak daaw jég sax laay wax ah def nañ ci liggéey bu mujj acib na liggéey bu mujj ayib ah, loolu moom defe naa loolu sax xanaa moo waral collège bi di am sax faf ndax aussi euh, ci liggéeyu commité de gestion yu monsieur le maire defe naa moom

ku nekk ci commune bi wax dëgg yàlla gis nga fi gis nga liggéeyu maire bii surtout lu jëm ci inondation yi biñ ci jógee ci 2022 bi ci lañ créé ci lañ créé 14 comités de gestion yi ñu def ci nag wax dëgg yàlla liggéey boo xam ne ah, ànd kook nag ak waa mairie yëpp laay wax parce que ci bàyyi kenn parce que ñoom ñëpp doon nañ leen gis ci terrain bi nga xam ne amul guddi amul bëccëg loolu moom lu ci bëri def naa mën naa ko témoigner ndax euh, madame le maire mu ngi nii guddi dama ko daan gis ci terrain bi ñoom monsieur Djibi Ndiaye ak ñoom Ibrahima Thiam ñoom ñëpp ku ci ne daan nañ la gis ci terrain bi guddeeg bëccëg vraiment taxaw fépp fu maire waroon taxaw daaw ñu taxaw fa def fa liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla ragal naa ne moom bu fi nekkoon sax bu ko neexoon mu toog kon nag ñu leen ci gërëm bu baax a baax ginnaaw loolu nag ci collège bii nga xam ne moom lañu créé tout récemment ah, yàlla itam ak xëy na ndimbalu maire ak xarañam ak bëggu commune xëy na dem na en haut lieu waaxal ñu foofu taxawal ñu foofu dañu bàyyee ñu xel parce que képp kuy wax fi mu ne nii Dakar euh, commune de Nuteel région de Dakar. war nga pratiquement Sangalkam fi ñu des inondations parce que ñëpp xam comme ndox euh, nord ndox day ah njëkk woon nañ ko ñetti ba ñun ñun ñun jël loolu maire maire waxal nañu taxawal nañu ba le projet 2 boole projet 2 boobu avec ah, ak am cabinet bu jël cabinet Gérard moom mooy ñëw pour def facilitation bi am na yeneen ñaari cabinet yoo les études mais pour le moment on travaille avec le cabinet Gérard le groupe d'études de recherche et d'appui au développement cabinet Gérard boobu nag actuellement fii may wax ak yéen euh, nous avons fait les sensibilisations là au sein euh, des villages et quartiers en collaboration avec les 14 comités de gestion actuellement nous sommes suba si nii ñu ngi waroon après midi nous avons sangalkam la ñu de a dem parce que j'ai mon may de mon corps. ma ko wax donc nous avons fait yoo xam depuis bañ commencé ak légui euh suma jumul def nañ fi kunun def nañ fi zakunun euh, def nañ fi euh, cité mbaba gisee euh, def nañ fi daaru ci bub bima joggé donc ñoo li ci def ci suba lañ waroon am na beneen programme bo xamné nak euh mom lañ wara continuer fi ak suba gënaaw suba muy door jeex importance collège bi nak moy ben comme niñ koy waxé nit ki bala nga né nam loolu mooy lan ñi nga xam ne projet 2 bi moom la war a ëmb bu fekkente ne bii ne dañu ñëw pour def pour liggéey fii te ñun ñi nekk ci commune bi boole wuñ ñu ci yaakaar naa ne du ma wax ne duñu am réussite mais balaa ñoo am réussite am dana metti ci ñoom ndax nag tubaab bi dafa ne tout ce qui se fait pour mois sans moi et contre moi loolu moo waral cabinet général boobu ñëw ànd ak ñun di def facilitation boobu loolu moo indi création collège bii nga xam ne ñoom ñun on travaille en collaboration ak ñoom bon benn on fait la sensibilisation pour xam réellement lan mooy impact projet de euh, ci commune bi bu ñu ci paree ci li ñuy def ni sensibilisation bi dana am euh, benn ma ben contrat de performance bo xamné ne collégien bi dina ko signante ak waa mairie bi pour itam ñu xam exactement qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait légui bu ci joggé nak ñu dem ci phase réalisation yi peut-être parce que motax ñu né bon le projet là c'est pour cinq ans 2020 2024 bi 2029 donc amna amna important tellement que ñun ñëpp war nañ cee mën a jàpp euh, ndax colligé bi nag ni ñu koy waxee euh, nekkul loo xam ne dafa am ay retombées yoo xam ne dañ ko ci am déedéet acte de volontariat yàlla pour ku ci nekk ak foo mënta nekk war ngaa mën a taxawal sa sa commune bi surtout ñun suñu commune bi ñu nekk même bu dul woon dara sax avec euh, maire bi ñu am yàlla xam bo ya boo yaafuusoon sax da nga mëna da nga wara mëna mën a sa bop ndax yow ki lay jité bo amé yenn xarañté ak yenn pragmatisme bo dé nit nak war ngaa jóg nag bu tollé fé nga top ci ginaawum di ko rawati na nak yow lamuy def ko kenn defalu ko yow la koy defal kon nak wax deug yalla lool rek ak indi ki bi projet 2 bi projet bi nag xëy na am na ay réalisation yoo xam ne danañ danañ ko fi def mais comme eggaguñu foofu yëpp xëy na foofu mënaguma fa mënaguma dugg foofu mais daal li ñu xam mooy ngeen jàppale ñu daal ci waa ñi nga xam ne équipe bu Gérard bi ñu ñëw te ànd ak ñun waa collège bi ci sensibilisation yi ñuy def nii ci biir quartier yi ak ci biir village yi bu ñu leen seetsee daal ngeen jàppale ñu ci wax leen seeni réalité ñoom tam ñu wax leen projet bi effectivement ban impact lay am fi ak yeneen yi ci aju yëpp bu ko defee nag ngeen dimbali ñu rek jàppale leen ci ñoom équipe bi nga xam ne ñoom ñëw te ànd kook ñun ñii waa collision bi foofu daal foofu lañ tolloogum donc bëgguma monopoliser parole bi xanaa di ko dagge fi nag di sant yàlla nag bu baax a baax ci lii nga xam ne nag moo ñu tax parce que lii nag moom du lu bees loolu moom def naa loolu wax ñëpp xam nañ ko du du lu bees parce que comme ni ma ko waxee rek maire ak équipe mi moom da xaaruñu xaaruñu kenn xaaruñu état xaaruñu kenn lolou mom ñëpp xam nañ ko kon nak lolou itam monsieur maire ak yak sa équipe encore une fois ñu leen di sante di leen gërëm bu baaxa baaxa baax ci pragmatisme bi ak ci diligence bi nga ak ci gouvernance participative bi nga indi depuis ton avènement kon nak ma di leen sant di leen assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mo nañ jël nak moto pompe yi tok suñu kër wala ñu waxtaan xol ñu ñu neex jox leen ko et dama ne man dama japp na boy defal nit da ngay fexé lang koy defal mbañ am xaj ak sen lang koy defal nga nek taxawal mu taxawal ndax kuréel yi ngeen gis ci fi nek ci commune yépp muy comité yépp man ma dem en 2022 bu ñëwé andak le bureau municipal dem installé comité yépp muy Kër Ndiaye muy Njaxaraat muy Kunun muy kadarusar may leen dajol leen ma ñëw ñu tok ngeen fal comité bo xamantene lépp lu may joxe si inondation comité boobu laa koy jox kon tey ñi fi toog ñëpp si tur comité yooyu lañ ñëwee moo xam Kër Ndiaye loolu moo xam kunun la te kenn ku ne am nga représentant bu la fi teewal donc tey man ñooñu laa convoqué tey pour ñu ñëw ma jël li nga xamante ne tey askan wi ñoo ko moom li nga xamante ne du xaalisu état seen xaalis la yéen ndax bërëb pompe yi du xaalisu état li ngeen fi gis lépp xaalisu commune u Sangalkam c'est sur fonds propre lañ ko jël jënd ko delloo ko population yi may naa ko jël tekk ci loxo comité yooyu donc tey li ñu def mooy remise symbolique kese la ñuy def jox leen ko bu ñu paree nag mu am suivi xëj nag su ngeen gisee daje bi am mooy am na ay kàddu yoo xamante ne aussi mënu ñàkk ñu wax ko ci maanaam lu ci mel ni tey moto pompe yi mënuñu at mu jot jënd ay moto pompe loolu dafay xaw a metti parce que tey moto pompe yi ngeen gis bu su nekk mu ngi jar quatre-vingt-dix mille moto pompe bi rek récolte bokku ci carapine bokku ci carburant ñëwagul. donc nous avons pompe bu Ben coûter année, environ Ben bu chaque année nga bëgg sa jënd millions. yi ngeen millions trois et six millions la nous pompe millions ko que deux millions dit que millions sorti avons la nous donc dit que ko dit c'est pour que zone yi nga dafa am ndox zone yi nga

yooyu lañ koy jox dëkk bu ne am na ci quota ñii 3 ñii 4 ñii 5 ñii 2. man ngeen gis dëkk boo xamante ne tey wala benn si dañ jox ko 3 moto pompe nekkul problème mu mais problème mu le besoin bi fa am maa ngi koy wax léegi daaw am na si yoo xamante ne dañu am problème mënu leen jox benn wala ñaari moto pompe il faut jox leen 3 wala 4. du en de village wala en terme de cité dañuy xool fan la urgence yi nekk su ne sax dañuy jël vingt ko si benn place sax yóbbu ko bi.

mu baña am li day ma ni a mer wala man ni conseil la wala man ma non non nañ ko jël def ko fi mu wara dem bu doon loolu kese man ma koy jël xol fu ma koy duggal ak mu duggal mais man dama jël jox len kon comité yi mo xam kan jaylo Lo xam Kunun mo xam Kër mo xam sidi enseignant buñ ko yobbo dajé len wa dëkk bi ngeen toog ne ah mer kat moy jox li ngeen waxtane ko ndax sa suné so ci dalé dara da ngay tok après sa xol di metti parce que da ngay jox pour defar nga dégg ci loo xamante ne du la neex kon dama bëgg bu ngeen ko jël yóbbu ko bu leen see def dara parce que fii nit ñi liñ bëgg mooy ku leen yëg ku leen sentir yow yaa ñëw boo àggee cité enseignant wala waa cité enseignant responsable yi ne leen ah lii moo fi teew nu ngeen ko gisee je pense que loolu su amee problème du am mais bu fekkee dafa dem ñaar ñett jël yóbbu kër gu leen neex loolu dafay indi problème kon loolu ay cadre loo xamante ne lu may dolli la parce que ànd boo gis rek jàppal ma jàppala te nit ñi kenn du mu ñël kenn dara man xamna naa c'est pas facile man des fois damay mo parce que sa bo rek am problème sa bo rek am problème te nak bu da nga yilif ñëpp and ak ñëpp te bëggu andi xaj ak sen yu mel noonu daf déranger kon limay ñaan moy luñ fi jëlé buñ ko kunun nañu o wa kunun na ngeen maire li la joxe waa kunun décider lañ cey def su démé njaxarat ñu né wa njaxarat ñetti pompe baa fi né mu ngi ni lañu maire jox gasoil problem ngi ni gën waxtané ga je pense que su amé problème du am difficulté du am loolu motax moo tax o fi naa

faut que dafa teg 5 jours taw wala 4 jours mu taw rek problème day am mais su tawee 2 jours toog 3 jours problème dina xaba a wàññeeku. donc euh, di wax rek né xëñu na ren métteegul mais semaine yi ñu jëm ni 2 semaines dina métti parce que mois d'août lañ nekk donc fek septembre le 10 septembre fek le 15 coono jeex mais fiñ jëm ni dana métti moo tax vraiment tey démb laa oo daabu nekk daabu il faut ma joxe ma de pompe yi comme ñëw na jarul xaar wo dem motax information sa sax mais ma ngi xam def le tour suba.

compétence étale, état effectivement il a raison mais nous devons améliorer le améliorer cadre de vie population la population de ko compétence kon tay man dama suñu compétence quel que soit alpha nak su baaxee ñun lañu wax su baaxu ñu la dañ koy assumer ndox nous prévenir na gouverner c'est prévoir mais l'inondation, dama tout le temps dans mes réunions dama leen né dafa acteurs nous avons les populations d'abord la commune les collectivités territoriales et l'État aussi Nous ñooñu kenn mu leen dissocier les vrais acteurs population État ak les collectivités territoriales Nous ñun États. État lañu kon ñu avons les États. Nous effectivement Nous avons les administration Le dossier les nous mettre à la disposition du nouveau régime xam nañu les enjeux daa wax na ko sànq le premier ministre est venu ici def na fi benn visite ma si remercier ni ko teeroo ñun ñëpp moom xam na les enjeux. parce que tey dama koy faral di wax mooy leen bu njëkkoon dañu wax ay gàddaay ay dakaar ay géejewaay mais boo nee inondation tey bu dee gàddaay géejewaay BRT bi rek la problème bi su dee dakaar Dakar am na assainissement bu dee Pikine le marigot de Mbao a réglé le problème bu dee Rufisque nag mais Sangalkam la ñuy wax. kon tey ouvrage yi waa Dakar am waa Guédiawaye am ko waa Pikine am ko dafa jot Tëngéej rawatina arrondissement Sangalkam am ko kon bu ñu ko tey arrondissement Sangalkam la et tey boo xoolee dakaar un tiers mooy commune mooy ex communauté de Sangalkam tey képp kuy dëkk fi ngay ñëw yéen a ngi nit ñaa ngi ñëw chaque dimanche ngeen gis ñu jël bagage ñoo toxu si fii mais buñu ñu amul école yu bax amuñu lycée yu bax amuñu yoon yu bax mais day metti war on souffre tout temps ñi nangi ñew te ngeej geej gi tëj na ko ber terre bi tëj na ko Dakar fees na parcelle fees na donc mu tax lepp fi la kon tay dafa jot état sóoraale xamne tay vraiment sangal kam dafa nek tay dortoir du ma ne dortoir sax dafa nek lo xamne tout le monde converge vers sangal kam kep ko habitat social tu penses à sangal kam kon tay dafa jot ñu en terme d'infrastructure état bi accompagner te loolu aussi ñom Nous ngi ñaanal yalla yalla def na ñu l'espoir est puni parce que c'est la première fois avec ce nouveau régime le premier ministre def conseil interministériel inviter les maires c'est la première fois nous na fi deux ans mais c'est la première fois def conseil interministériel ñu convoquer les maires maires tok ñu jox leen parole directeur yep tok géro les ADM les ministres l'eau ak urbanisme ñëpp ñëpp ministère ñëpp ñëpp tew ñu tok ñu xam moyens yi fan la dugg lan la le premier ministre ne leen dafa ma rapport lii fu mu toll nii ak ni maa ngi toog ñu wax suñu xalaat kon loolu dal na xel kon gëm naa ne ñu ba yàkkamte xam ne état bi fi ne ñun am nañ si ñoom yaakaar dama koy faral di wax na nit boo jubee rek amul solo àdduna jarul xam-xam jarul amal jubal man jë fekk ku jub ma jokk sama alal mu gën a ku jàngata jubul te ñi fi de tey la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye le premier ministre Ousmane Sonko man li ma xam si ñoom mooy jub ak jubal ak jubanti loolu nag ñun population yi kenn waru see jiitu tey am na ay bassin yoo xamante ne installé que dans la commune muy le bassin de Daaru il y a deux bassins actuellement j'ai génie militaire installé fa ñaari électropompe bu tawoon tey ndox du fa taxaw tey le bassin de Kounoune bi mu leen oowee j'ai dafa ñëw installé fa benn moto pompe kon loolu dañ koy saluer at mii nag wax nañu leer nee nañu mënuñu def benn ouvrage xam nga wax day leer li ñu mën mooy jàppale leen accompagner si pompage parce que ñu ngi phase étude wax na daa wax na ko sànq ak seen moo waral ñu taxawal collégial bi collégial bi collégial bi c'est pour vraiment cabinet la bo xamante tay ñom dañuy liggéey ak ñom ci wal inondation def sensibilisation alerte population yi prépare avant ouvrage di ñew donc face étude bu jeexee ñu commencé tambal liggéey bi parce que tay banque mondiale bu la joxé ay milliards ba nga koy duggal fenn di ko fiñ ko war def ay études approprié ko loolu defe naa ne ñu ñëpp xam nañ loolu moo waral étude dafay jël temps donc année prochaine incha allah suñ fas yéene tàmbali ouvrage yi mooy li baa daa daa wax sànq moy canal li nga xamanteni ne ko wara def mu déparé Kounoune le bassin versant de kunun bi wara a jógee dem Lac Rose parce que yalla entre entre la mer ak euh, comment dire je euh, le lac dafa am benn bras de mer donc ndox mi su nga popé ci lac bi une l'autre part fay dem ci géej gi moo actuellement ni ben histoire mo am muy le Lac Rose ak la mer de ñaag euh, comment dire ça Lac Rose donc faut mooy am histoire parce que ben histoire moy autour à bi mais autour à bi y a un problème parce que nous sommes d' d'accord ñu pour ñu pomper fa ndox mi ñu pour ñu ubbi mais cette année ci maa ngi saluer vraiment grandeur le préfet du département Abdou Khadir Diop moom mo ñëw taxaw xamal waa Eiffage carrément ni len population ñu nekk fi di souffrir ngeen di tabax fi mo toj mur bi pour ndox mi man fa jaar mo ndox mi ñëwatul lu ci bari dañ koy verser fële mo tax mu xaw am tuuti soulagement donc actuel yooyu dañ koy saluer parce que amuñ ko en 2022 amuñ ko en 2023 kon limay wax rek moy nañu en la main dans la main xamné yalla yàlla di wax né inondation peut-être nit ñi dañuy stressé wu donc actuellement il y a plus de plus de peur que de mal nit ñi ni ñu ko jàppe woon sax xam naa ne amagu leen dégâts yi mais né kenn xamul li xew suba ndax bu xewon 3 jours taw 3 fois 4 4 fois rek ciolu jeex kon limay wax rek moy nañu mobiliser wu vraiment boko nday boko boo gi may wax chaque jour kenn ku ne xam fa nga ne yow maire nga fa responsable nga fa kenn ku ne xam tay

ñun dañ ko war a def en tant que élu parce que ñun ci la ñuy xaar kon nag inondation yi tey li may wax rek mooy ñu dalal xel yi xam ne comité ñu ngi fi bépp jafe-jafe bu am moo xam cité la wala village ak fu mën a doon bu ngeen ñu avertir ñun dinañ ñëw am ci taxawaay ndax du leen jox pompe rek toog di leen seetaan dañ leen déglu saa bu urgence amee bu ngeen ñu ooyu ñëw mu pompe yi mag nag yi après ñun deen xool si dëkk yi sàngal kam boo demee tey terrain ñaay dafa fees del ak ndox tey foofu dafa jël dafa dugal mu pompe bi soo demee kunun fi dema jaay dëkk noonu si suuf ko ñoom papa lii dafa fess del parce que yoonu ndoxlo donc fofu moto yi ñofu mëna dem donc zone yo suñu paré dina créer ben équipe technique maanaam commune bi amna direction des services techniques ñom dina wax ak ñom jox auto parce que li kéro bi ko indi fi 20 personnes ñoko ñap 20 ñoko ñëkëti difficilement lañu ko indee fi ma xam ne ko bëggee yobu ko yóbbu ko maire da fay metti mo tax bayiko fi né nañ ñëw fi joxé ko fi donc lolu dafa laaj mobilisation logistique bo xamantene mo koy accompagner lolu nak ñun danañ créer comité bo xamantene tay

nek imam nekk aussi représentant des sages ak aussi le le coordonnateur ñu dox quelques groupes rek li reste après ñu àggale liguey bi daa bu continuer liguey bi ñu ngi sant ñep di remercier la presse sen présence. li ñu war rek moy jigéen leen di wax ak yeen kenn mënu nag régler problème yëpp réew mi dafa nekk ci problème kenn mënu ko régler lépp c'est dans le temps mais li am solo mooy ñu nek en face ak yeen té lolu vraiment ñu ci liguey donc ñuy ngi ñep di sant ñëpp di rafetlu kàddu yi ñu fi dégg yëpp. kaa ñu ngi santaan ñëpp di gërëm ñëpp loolu moo nekkoon kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatulah